ñu ne ñeent yi nga ciy def ra na xata rana xata ramyu naxr xalq tawaaf ñeent yooyu nga def ci bis tabaski ram yi mooy sànni jamratul aqaba boo sanne ba pare naxr nga loj sa hëdiyu bu dee lu ñuy loj comme gileem bu dee lu ñuy rendi léegi sax oustaz boo demee màkk am na ticket yoo xam ne yi moom ngay jënd rek defal la sacrifice boobu da ngay gis ñu ba ba daral ba waaw ñu ren di ñoom ñu gis mais am na ñoo xam ne ñuy tikkee bi rek la ñuy jënd am na ay sociétés yoo xam ne oustaz ñoom ñoo amee yooyu daanaka gis nga xar yooyu yëpp dañu koy jëlaat di ko defaraat gis hmm. nga mooy karkas karkas mutun yooyu nga xam ni di koy hmm. yónnee ci réew yi Afrique yi réew hmm. yi néew doole yi mu ni kon oustaz rab yu mooy nga sànni jamratul aqaba ci bis tabaski bi naxar mooy nga loj sa hëddi xalq nga wat sa bopp nga wat nel nag moo gën ndax yonent bi saa sam bam ne rahimallahu almuhalliqin yal na yàlla yërëm ñi watu am ñu ne wal ñi wàññi mu ne rahimallahu almuhalliqin yal na yàlla yërëm ñi watu ba ñu ne wal muqassirin ak ne yal na yàlla watu ñu wal muqassirin ak ñu wàññi mu ne wal muqassirin ak ñu wàññi nga xam ne kon oto bi moo fi yor tuddee na ko ñetti yoon waaw nga xam ne moo ëpp waaw ah. muhalliqina ruusakum wa muqassirin la taxaafun hmm, gis nga oustaz hmm. bu dee ci jigéen xam nga jigéen du wat du watu hmm, mais dañu ne day dajale kawaru boppam yëpp su ko dajalee dagg ci lu toll ni an mu la mooy gis nga sa baa comme sa baaraamu day bi euh, rëdd wi ci kaw lu day noonu moom jigéen lay lay dagg ci karaw kon xalq saa gi di tawaaf ñu def tawaaful ifaada dañuy def ci bisu tabaski ñeent yooyu oustaz am nañu ne boo ko jiwetlee itam aayu waaye nga tartif ko moo gën nag ram yu sànni jamratul aqaba naxru nga rek sa hadi xalq nga watu tawaaf muy tafa tawaaful ifaada fi koy def ci bisu tabaski bi di nga gis sax oustaz agence yi ñoom bisu tabaski bi ñu ci bëri mag ñi duñ leen yóbbu màkk ci parce que day metti ci ñoom dañuy bàyyi ba xëy na ayaamu tashriq yi ñetti fan mu naay ah ñu doog leen a yóbbu parce que tawaaful ifaada bu dee ci imam Malik eh, fii ba tam xarit xam nga ustaas tawaaful ifaada am na ñoo xam ne ñi utaluñ ko limite mm-hmm. boo amee ngant foo ko mën a defee baax na mm-hmm. mais ci imam Malik moom dafa ni fii yëg tam xarit teruwul rek mën nga def tawaaful ifaada ñu ngi ciy ñëw incha allah ci ashurul xaj parce que nee na euh, tam euh, euh, zul xijja yëpp ci wéeru tëb ci wéeru la bokk ñii di shawal zul qiada ak ash zul xijja daan ci kori na dèjà dugg nañ ci weeru kori waaw weeru hmm. tabaski ak fukki fan i imam Maalik ni kori hmm. diggiwu tabaski ak weeru tabaski bi yëpp kon moom fii tam xarit nga def hmm. tawaaful ifaada kon ñooñu dañoo xaw a am fu ñu xaw a juuyoo tuuti. Ah. pour comme ashhur la wa waaw ñu ne ay weer. ah kon bu boobaa jamono foofu fan. ah Imam Malik moom moo tax mu ne ko yëpp ci la. ko defee kon oustaz mm. nañu dindi seen i watoog yooyu. dindi seeni i wee. Mm. mag ñi mooy ay ti ay salte salte. Mm. wal yuufu nuzuurahum kenn ku nekk la nga nizeroon matal ko. nizer mooy jaamu yàlla gi nga teg sa bopp. wala yatawafu bil bayt al atiq ñu war kaaba muy tawaaful ifaada bi nga xam ni moom la ñuy def ci bisu tabaski bi incha allah yooyu yëpp oustaz mm-hmm. ci suñuy waxtaan yi ñëw nañ ko gën a détaillé kon foofu oustaz ñu laaj ci wàllu xale ki mm-hmm. majeur agul mm-hmm. léeg-léeg ñu gis ci màkk am ñoo xam dañuy indiwaale ay xale ñuy tabaski ndax fo kii sax ñuy ñuy aj maanaam def armal leen ndax ñu naka la demee ndax loolu leen war la ndax buñ ko defee mu mu tabbi. wala daal dafa am beneen bu leen di xaaral. waaw xam nga oustaz aji makka dañ ciy charte nit ki mu nekk mu kallaf. Mm-hmm. ku ñu teg jëf muy ku majeur. Mm-hmm. mais bu dee xale benn waay dafa yëkkati wun benn xale. Mm-hmm. solol ko armal yëkkati ko ni ko ni yaa rasulallah uh-huh. ndax xale bi am na aj mu ni ko waaw waaye yow itam am nga yool mais ñu ne du tee su ma joree mu ajaat aj googu du ko doy aj lu ko doy ci aljur